université bii ñu lakk moom Sonko moo leen koy defaraatal te moo leen ko lakkaloo ñu lakk ko. waaw moom du ma yow yoruloo génneel enregistrement bi du ma ne maa ngi door a jot almet bi nga xam ne moom laay taalee réew mi du ma ko wax ci làmmiñu boppam. ah waxu ko. wax na ko léegi nag boo demee demal say archive. de dama ah kay man.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 parce que man réew moo xam ne da nga fay fekk ay mag yoo xam ne amuñu dara dara lu ñuy rus amuñu dara lu ñuy romb amuñu dara lu ñuy jomb laa bëgg a wax rusale wuñ seen bopp di wax loo xam ne penc mi yëpp dañuy xam ne ah te da ngay xool ñu ne ay kilifa lañ quoi vraiment moo tax man baatu kilifa léegi balaa ma koy utiliser damay xool ci kan laa koy utiliser ki ma koy utiliser mooy kan parce que kilifa du noonu dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy mbubboo seen bopp di tuddee seen bopp ay kilifa mais matuñu ak kilifa. xam nga yor jabar yor doom yor yor yooyu yëpp yor ay kër i oto yooyu yëpp taxul nga nekk kilifa kilifa day doon loo xam ne mën nga nekk xale bu ndaw sax nekk kilifa ni da ngay am looy jomb ni da ngay am looy rus président Sonko da leen a raw da leen a gën juddu gën leen lépp lépp lépp la leen gën gën leen lépp ndaxte tey yéen a ngi ko jël nee ngeen nëbbu ngeen ko jant bi mais tey loo lu ngeen fi wax ñu suul ko loo leen wàqi ñu sul ko mënoo leen koo yàqal mënoo leen yàq ab deram parce que yàlla moo ko defar kooku Seydina Ousmane mu sell mi moom lañ koy woowee te dafa sell mënoo leen ko taqal lii jéem ngeen ko ba sonn mënul jàll dangeen di noppali ko jéem ngeen muy muy bii ngeen di waxee bi mu naan am na almet bi dina taal dëkk bi ak beneen bi muy waxee naan euh, xale yi nee nañu ko ko ko ko dee juraat ñaari wax yooyu forcé ngeen ko nit ñi ba sonn pour bëgg nit ñi gëm ne loolu la wax te nit ñi gëmuñu ko dama xamul nag yenn saa yi seen yaram yi du jikki-jikki ne cur cur quoi ngeen xaw a def nii sax xaw a kat-kati ci li ngeen di def ragal leen yàlla gis ngeen boo leen leeree ne di ngeen dugg si biir bàmmeel mu gaaw mu yeex na seen jàmm te te man lu mu si gën a métti ay mag yoo xam ne daanaka seen benn tànk ñi ngi si biir bàmmeel beneen baa ngi si àdduna bi daanaka ñooñu ñooy ñoom daal ñoo continuer ah non man man am na ñoo xam ne yàlla ma yàlla musal ci ñooñu mais buñ nekkoon sama wajur man man ma gedd sama cër quoi parce que am na ñoo xam ne duñu ay nitu dara dara dara dara amuñu fulla ñu fayda amuñu dignité amuñu personnalité respecté wuñ seen bopp respecté wuñ seenu njaboot moo tax loo leen dégg yéen a ko def Ousmane Sonko moom ku ko fenal lundi mardi ñu fen loola li ma wax dafa leer nag ku ko fenal lundi mardi ñu fen loola falaa yem nag gaa xol leen Antoine Félix Diome lim defati du leen ko wax de xol leen ko. bonjour sénégalais sénégalaises alors ginnaaw bi ñu amee suñu ministre boobu di ministre orixi euh, mu inauguré garage clando bi ñu gisaat beneen ministre boobu noonu inauguré temps yi passé euh, rond point boobu noonu voici le ministre Antoine Poussin Diome. fële ca moo demoon nii laxasoo garam bu ma koppateem nii samp panu bi nee na arrêt Antoine Félix Diome la doon inauguré noonu daal di baare yoon bi fépp kenn jàllul ci pancarte bi xamul doon nii nii waaw ngeen ñaanal ko nax mu am si ay panneaux yi panneaux yu bëri ci ñeenti weer yu ko desee incha allah yàlla nay inauguré di inauguré di inauguré ba février 2024 incha allah ñu daal di koy jàppale mu inauguré euh, arrêt Antoine Félix Diome fële ci buntu rëbës bu soobee yàlla ne leen merci. <laughs> ah gars yaakaar naa ne comprendre ngeen si li ma yaakaar pour man comprendre ngeen comprendre ngeen mooy lan Antoine Félix Diome gis ngeen tablu bii tablu bii ngeen gis nee na moom la demoon di ko immigré ji man nag Antoine damaa xamul dafa amul liggéey fan yi wala fan yi eh, liggéeyam dafa doxul quoi fan yi affaire dafa amul sànce parce que moom li mu jàppee sànce mooy di bunduxataal ay nit di jàpp ay nit di tëj ay opposants yu def seeni manifestation mu yebal fa ay gaayam ñu dem di di tas manifestants di sànni ay lacrymogène comme fan yi nag ay lacrymogène jubul ay manifestation amul parce que xañ ngeen nit ñi seeni droit da ngay nekk en semence doodoo am loo def comme nag amuloo loo def ngay dem bëgg non man man Antoine am nga jot nag mais lii loo leen woo téléphone sax bu fekkee ñoom ñoo ko initier ñoom ñoo ne dañ laa bëgg a tuddee foofu table mais lii en tant que ministre de l'intérieur waroo am jot bu toll ne bàyyi sa yitte ji yëpp nga ne yee da ngay dem di intégré yi benn tableau bu ñu wax ñu ay fii yaa man man mun daal man daal man daal ñun yan ñun yàlla lan lañ def yàlla ba mu jagleel ñu genre ñii ñii ñii ñoo ñii ñooy ñii ñoo yor suñu réew mi quoi ñii ñoo fi nekk ay ministre de l'intérieur ñii ñoo fi nekk ay président ñii ñoo fi nekk ñii ñoo fi nekk ay député ñii ñoo fi nekk ñii ñoo fi nekk et cetera et cetera. ñun lan lañ def ba mérito li est-ce que ñun tamit ñun tamit waruñoo def benn réunion béro boo xam ne dañuy dajale quatorze millions xom euh, dañuy dajale dix-huit millions de sénégalais yëpp ñu toog xoolaat suñ bopp xool lan la ñun lan lañ def ba mérito li ah ñun li ñuy dund metti na waay laa moom moom vraiment <laughs> Antoine <laughs> ay waa ji bonjour sénégalais sénégalaises alors nous bi ministre de ministres ministre euh, garage clando Nous avons ministre inauguré euh, rond-point voici le ministre Antoine Poussin Diome fële ca mon la la ma panubi nena are antoine felix diom la doon inauguré nonu daal bari baare fep ken kenn ci pancarte bi xawmu mu do ni ni waaw ngeen ñaanu ko nag am ci ay panneau yi panneau yi panneau yu bari ci ñeenti weer yu ko dese inshallah yalla ne nay di inauguré di inauguré bu février 2024 inshallah ñu daal di koy jappalé mu inauguré euh, avec Antoine felix Diom eh. fele ci buntu

jënd naa samay oto am naa samay moyens am naa sama caution am naa sama programme de campagne ki may àndal bu ma seetsee ñu war a ànd première condition mooy Ousmane Sonko ñu livre Ousmane Sonko ci kaso bi. d'accord loolu de lu am solo la. loolu laay teg parce que damaa defe ne Ousmane Sonko warul des si kaso bi. ndax Sénégal moo ko soxla ndaw ñi moo ko soxla te réew mi pour ñu am jàmm da ngay tappe xol yi génn ñëpp yaatal pour tabax réew raba kenn mënu ko tabax est-ce que ngir gagner seen xol man li ma gëm laay wax man Ousmane Sonko kan amul lu may man li ma gëm sama xol laa wax yàlla xam na yonte bi xam na Sëñ Tuubaa xam na Ousmane Sonko bu ma sañoon du fanaan si kaso bi tey d'accord mais kon la ko màggal di ñaan yàlla yonente bi Sëñ Tuubaa maam Alaaji Fàllu Mbàkke mi ñu ko tuddee